thank you

ok dégguma dégguma waaw waaw dégg naa la foo nekk fan laa lay fekk waaw Thiolo fan laa lay fekk ok ndax booy bi dama yab quoi ah eh, wuy ma eh xale eh, wuy ne ko yaay sama papa. lii porte la dañ koy am gerte. mais loolu rek ma fefti dugg na su doo jéem a dugg magasin ba. jéem a boy boy non def sa li nga def bu ko yàq. yaa ngi temps yoroo dara. gérer loolu boy man ak sama papa mënatul nekk. dama fa pour ñibbi sa gaale mais da nga koy nax nii nii est xam ne boo fa demee chantage ko ni ko damay dugg gaale boo ko laajee on sax mu jox la ko. sinon saa yi ñuy fañ de. loolu laa lay wax nii nag. loolu nga gisal. Ah? dugg fay gaan wala. booy plat bi xam nga rek booy gën naa gaale quoi et da xam nga dama waxoon dootuma fa demati. père bi sa père la dama géré ko. sinon jiwu ndaw bi da lay jiitu de na leer. mais jiwu ndaw bi amoon na lu ma tege ci plat bi xaw ma ndax mi ngi fa wala. ci loolu. coolu coolu avant. dayam. waaw. ma. fekkaat ma gaale. coolu coolu. xam nga ko expliqué quoi xam nga rek man paa bu fi nekkee ma koy ñu quoi xam nga rek day wax ay jant yooyu noonu quoi. bien dama bëgg bu gën a xonk. waaw xam nga bu ko toll fële gis bishop buy ñëw rek nga seet. waaw waaw day gàll. donc ah, dañoo yàgg. ay ah, nigga mes jàng waa ngi. ok. ay eh, nigga mes ma nigga. Ah, waa ngi am. waaw waaw yéen kooku ak si. xam nga damay jàpp dafa am ñoo xam ne xamuñu style lu rafet. xonkal si moom. yow heure koor gi muy xonkal si jëm. am nañu tigi mi di. daa ko nga génne ma fee. xaw ma xaw ma xaw ma rek la. wuy ma dama bëgg a génne fee vite fait quoi. mais wax leen bu yàlla nee waa léppay changé. yow da say style changé wu. ok. dana xawal leen la la waaye. allo ma belle. waaw je suis dans le salon c'est Ligamès. tu me vois pas La voiture rouge. Mais faut sortir, il ne te voit pas. La voiture rouge, tu vois. Ah, c'est vraiment je te veux. Mon gars, sûr. Comment tu vas Je vais bien. Cool. Ah, ah. te l'avais dit au téléphone, mm. ma mère, elle est très malade. Elle est oui. très gravement malade. Ma non ma maman ma ta maman c'est ma maman. waaw elle est malade. Yeah. donc dañ ko bindal ay ordonnance. 150 hmm. 000 francs moo koy faj. voilà quoi. ah. 150 000 francs CFA. mon gars sûr. Tu sais, moi, là, il t'aime, tu sais ça, hein? Oui. Hein? C'est que depuis lors, là, je ne suis pas retournée en Côte d'Ivoire. Oui. Si ta maman est malade, c'est comme si moi, j'étais malade. Oui. Là, là, de... Ok, d'accord. Attends, attends, attends, mon gars. Attends, quoi? Mon gars, tu quoi? Pourquoi tu chaud comme non, ça? Si hein? tu n'as pas d'argent, tu hein? retournes Ok, je t'appelle. C'est tout ce qu'il y avait. mon gars, mon gars, tu attends. Mon gars, je toi là, est-ce que tu m'aimes Oui, je t'aime. Mon gars, tu veux créer un gourmet gourmet. Hein? Hein? L'autre jour, tu m'as dit de t'accompagner au match. Tu m'as demandé de venir avec toi. Je suis partie. Tes vieilles filles a été rangée. Écrit César, César. C'est quoi ça hein? je vais te dire c'est quoi ça. Hein? Je suis serre. Comprends quoi Il y a plein de filles qui rêvent avec moi, mais voilà, regarde-toi. Ah bon Après, je t'appelle, Sans faute. C'est sûr. Certain. Ah, je suis Ramadan, toi. Ah. Arrête ça. Ok. Mon gars sûr. Oui. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mon gars sûr, tu m'as entendu, hein. Ouais, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ah. Je t'aime jusqu'à l'époque de beauté. Yo, je t'aime, Yo, c'est juste pour te dire que je ah. Mon gars sûr. Je t'aime. Mon gars sûr.

kon yow instant yaa ngi wax ni ba léegi. gis nga yow dafa tuuti yow dootoo ma fréquenté yow. gis nga nit man ku may doo sol ay kàngool yi nga xam te ni jamono yi 1978 la ku ma woo ne eh, ko jëlee sa néegu papa laa ko wekki laa ko wekki. ah fa ko jëlee da ngaa lool. ok yow du secteur dootoo ma topp. yow eh, kàngool bi seen kër la dëgg. waaw dootoo ma topp. <laughs> dootoo ma topp comme yow léegi man nga bëgg def sa concurrent ah, yow eh. booy da ngay jox ah, da toog di la xaar boobu yaa ngi mer xoolal mais li ma la indil bu ma la ko joxee da ngay bég ba Serigne Bamba bul nalaw jugal waxal li nga yow booy info garaaw laa la indil jugal garaay lu tegu nag loo xamante ni sa dégg am yow da maa mos a gis lu ñàkk fay perma waaw doomam mi ki ak daala fel golo ñaawul bàyyi ba doon jur. waaw surtout surtout bu nekkee bu gàtt nag. te dañuy mën a yëg nag. waaw dañ laa hébergé benn booy. waaye li ngay sangu. barki yàlla. dafa nege nege. moom dafa nege nege. dëggantaan. booy seen papa lañ topp. Eh, wuy ma wuy ma loolu noonu bu fekkente ni am na bu dee dëgg la non xaw jàppal ni kon booy bi. ay seex lay jur de non yow bul wax booy bu gàtt bu xees bi doon génn ak entre daala veli ak kii la. waaw bi biir na te kenn xamul kan la. Oh. booy bi daal li mu indi daal nañ xool kanam gi rek tontu njëriñ nga xam ne moom la. amagul waaw amagul si si lycée bu sincère. bu fekkente ne mu leer parce que information dafa ñëw en temps réel. information bi nag ay moto di dox si lii ñun lii la liggéey dañ laa inversé da dimbali man su fi jógee naa jéem fexe dafa tuuba gis ko muy ut sunguf toll reenu man laa seen jañ sunguf toll parce que il faut ñu koy sangee pour xale mën a évoluer léegi nag. benn affaire rek la ñu mën a def ñi ñu wax du bari da dem ba Thiès yow boo demee Thiès nga gis maman Ndeye Sine Sall Bella Sène ñoom ñoom ay ñoom gars nga wax leen ko ñu ngi du bari de du bari yow da ngay dem maintenant nga gis Ami Dia war a jógee foofu boo jógee foofu daal dem parcelle unité deux sa gars foofu ah, waaw Pout waaw am na ñu fa nekk sama ay copain ko wax gars yooyu man bàyyi ma yem ci cité bi rek ping pong yow da ngay jaar gauche yow nga jaar droite bu ko defee information bi wër ñu xamal ne booy dafa ëmb leer acca na doxee dof bi changé na chaîne yi daal kër gi jaaxal na fii daal lay guy gu dëng fi la ñëpp jàngee yéeg si moor nag tàggu na la daalim Dubaay wuti bagage di préparer Korité bi de mën na ñëw guddee parce que ay une heure du matin li fi ñëw moo tax mënuma laa yëpp sa mag nga léegi nag moom ma jox cent mille yi nam boo xëyee jox ko mati mu préparé dem ñibbi parce que collecté gi lee mu jot am te ak ki lii problème waaw bu dee cent mille nag Mor musumaa jox cent mille Mor deux cent mille la ma jox daaw ak ñaari mat laa te moor mu sa tukki te tàgguwuma Mor voyage am jarul tàggoo dem Dubaay ak dem Siin ak benn géejuwaay yi la yamale ndoxum naan la ci moom dafa dem wuti bagage pour korite gi loolu koy jarul tàggoo nag te ñaareel sax mooy tey njéeme laa bëgg fii mu lawal leen fi ndogu ndax damay am gan gu mat gana ndax xaritu moo tey fi lay ndogu te gan googu dama koo fonk ndax moom a ñaan si woon xanaa leer na. yow daal sa xaritu jëkkër doo ko lalal saal bi mu ndogoo ci kaw nga ko yóbbu mu ndogu. ci kaw lay ndogu. sa xaritu jëkkër. waaw sama xaritu jëkkër ki sama jëkkër la. Mor waxoon naa ko ne ko dëgg subir conséquences yi lay Fat Ndiaye ni mu gën kii sax kenn mënu la koo wax sama càmmiñ naga bon ba jabaram dem mu indi fi labaraan kii labaraan de surtout syndicat la ñu indil ku bon la fi indi. 10 minutes വരെ വേണാക്കാം വേണാക്കാം വേണാക്കാം non 33 33 dépense 33 zéro zéro dépense zéro dépense 4 minutes terrain 5 raka classique demi classique très classique alternative alternative ba tey lekkul naanu. Ah. waaw ay avion baa ngi Mali mu dama war a dem Paris nga ngay dulli. avion. avion moo war a yóbbu kaw. waaw waaw waaw.

kii ci kaw la nar a ndogoo sa xaritu jëkkër. yaa ko wax kii sa jëkkër sa jëkkër la ci ah. doo ñëw ndogoo ci suuf na yàlla. doo ñëw ci suuf. ay waay lii nag lan naan ñii dem jàng yaag ñii dem salle de bokkunu yoon. ay man maa waaru kii jëkkëram ji dem voyage mu nar a tëgër ba jow xaritu jëkkëram bi. yéegal ko ci biir sàmbur ak ku se naan fa lay ndogoo kii nag mooy katu yàlla bu bona bona bon moor waxoon naa ko ne ko danga doon yooru waaye yeb nga lu toll ni weeru koor li yàlla wax ci mooy yàlla kër gi moom dama koy génn dem sama yoon immédiatement bi bàkkar yow moom su ma la jàppee di nga ñeeku de ah,